nañu doxale na nga xam ne nii jàmm daal moo say jiitu ndax fu mu nekk moom ñoom la ñuy woote di mu Ndiaye Cissé ñoom ba Boubacar Ba Birahim Seck ñoom ñëpp daal jàppale ne bi ñu euh, defee seen ndaje dañoo jàpp ni nañu def seen kem kattan mu nekk ay élection yu nga xam ne nii euh, képp ku ci war a bokk nañ ci bokk te nag nañu conseil constitutionnel bi suñu juróom-ñaari maam yooyu nañu jël décision bu nga xam ne nii wala avis ñuy joxe avis boo xam ne nii dana tax euh, géej gi du débordé bal du tàkk sagar du xeeñ fii ci réewum Sénégal ñu jàpp ci yeewi askan wi yéenekaay bi tribune dafa ñëw ci yeewi askan wi jamono ji de dafa mel ni mm. yeeweetuñu kenn ndax ñoom seen biir ñoo yeeweeku Euh, kenn yeewiwu leen nag fu mu nekk ñoom ñooy yeewi seen seen bopp ndax nag yeewi askan wi li ko taxoon jóg mooy nee nañu askan wi dañoo sonn te ma président Macky Sall daf leen a tënk ñu fës kee ne woon yeewi askan waaye fu mu nekk ñoom ñooy yeewi seen bopp ndax bëri na si ñu nga xam ne yeeweeku nañu euh, ba démissionné euh, jamono ji xuloo beex tamante ndëmb bi bari na ci lool dénonciation bi ñu bëri ñu ngay joxoon baaraam kii di Khalifa Babacar Sall Ousmane Sonko Euh, euh, kii di Barthélémy Dias kenn déggatu ko mu wax xëj na mi nga ca liggéey ba barki démb boo Ndiaye Babacar Diop ma benn dëkk ñaari gaar euh, joxoñ na baaraam kii di Ousmane Sonko Khalifa Sall kon nag nee nañu yeewi askan wi fu mu nekk nii daal nekkatul la woon ñu nga yeewee yeeweeku seen biir cérémonie de passation de service Marie Xemes Ndiaye moom nag ak kii di Mame Ndiéré Abdoulaye Diouf Sarr joxonte nañ leen ngay ni ki démb Marie Xemes Ngom Ndiaye yëkkati na fa ay kàddu yu daw yaram ay joy sax ay rongoñ euh, tuuru na fa té nak néna na neexul ba neex bilan gu Abdoulaye Diouf Sarr kenn moom ci boppam Marie Khemesse kenn mënu ko ci génn. Hmm. bu féké bilan ba dafa négatif mom ca la bokk bu positifé eh, sa la bokk euh, bu toogul jonkanul moom it sa la bokk moom Marie Khemesse nangu na né mom mi ñu def tay ministre de la santé. bilan euh, Abdoulaye Diouf sar boobu amna ci ca amna sa pourcentage. waaw d'accord accord na loolu. ñu jëm ci trafic li nga xamné moy visa passeport kilifa. ak ña nga xam ne ñoom la ñu tegandoo loxo dinañ leen àtte juróom-ñaari fan ci weerub euh, juillet kon nag euh, foofu la ñu toll Pikine Ouest investiture yi ci biir APR jur na ni mu ko juree ci gox yu bari ci kanam tuuti di ngeen gis tëngee tamit waa Benno Bokk Yaakaar seen investiture yi jur na fa coow lu sakkan dinañ ci ñëwaat El Hadj si loo ne lépp jàmm alhamdulilah mbaa embouteillage yi téew la comme man poussière moo ma téye poussière ah poussière wax nga dëgg poussière bokk na si li ma téye tamit that's nice that's nice maa ngi ziar bu baax a baax. nu ma la ne. waaw tubaarkalla mu ñëwee loolu laa ko wax ne naa ko da ngaa sañ. cher boo solee lu weex day kile. day xal voilà. ayca Walf Quotidien dafa ñëw ci dund gu am metti gi tolluwaay réew mi waaye it askan wi mënuñoo mënees nañu wax ne jamono ji nañuy dundee jéggi na lool ñëw nag dooleeg ci coowal politique. mu mel ni kon nag réew mi fu mu nekk nii daal kosot rek mu tàkk gis nañ Mimi Touré ni mu yëkkatee loxo yi ci biir euh, yéenekaay bi voyage ba nga xam ne euh, président Macky Sall euh, jot na ko amal waaye it facture laitier yi nga xam ne 36 milliards lañu ko xayma passation de service bi yéenekaay bi ñëw na si bu Marie Khemesse Ngom Ndiaye ak nag Abdoulaye Diouf Sarr moom nangu na ne wax fa dëgg neex yàlla bilan bi nga xam ne moom moo moom am na sa part de responsabilité bu bu bu rëy kon nag wax dëgg neex am lu ci génne boppam. Euh, vox populi nag dafa ñëw ci suñu police bi nga xam ne fu mu nekk nii neexul ba neex ñu def nañu liggéey bu am solo ci ñàkkum kaaraange gi ci réew mi lu ñu leen mën a waxal mën nañ wax ne police mu ngi liggéey liggéeyam ndax nag def nañu le point nee nañu nag li nga xam ne mooy ñàkkum kaaraange gi dafa wàññeeku waaye nag infraction yi def nañ bilan bi euh, euh, cinq cent 1510 cas diggante 2021 nga gis kon nag 2020 yi nga amoon 1221 Euh, kon nag euh, def nañu xayma gi loolee ni ki ni ni ni ki démb zone inondable yi jàppale ne kon taw mi dikk na ba noppi yëmbal Kër ma Massar soo moytul ren jii ndox mi dana leen sonalaat lool en tout cas lu mu ci man ci doon yéenekaay bi euh, ñëw na si le témoin ñëw ci liggéeyu takkader yi di police a sécurité bi 2021 mënees nañu wax ne Samba Boy yi fu mu nekk nii ñoom ci boppam takkader yi defante nañu ñox ñoom mbaam nañu sa ndam donc ñoom takkader yi liggéey bu am solo la ñu def euh, te yéenekaay bi euh, euh, dikk na ci yéenekaay Sud Quotidien ci loolee sax la les chiffres 2021 de la police 22 422 infractions constatées donc ci manees nañu wax ne infractions sont ñu xayma Nous avons toll 22 422 nous avons ci 15 189 qui ay doomu aadama ñu defeere 1510 yu nga xam ni mbirum internet tax lu ni xeto la waye nak walum droxy si sinébar xam nga dañ dañu doon wax ne kon chanvre indien bi dafa xawa a manqué ndax rebel ya ko doon bay tek nañ ñu ci bari nak daw nañu àndax Salif Sadio ñu ngi leen di wër ba léegi fu mu nekk nag yàmbaa ji tamit non lañ koy wëré ci réew mi waaye ndekete yooyu yàmbaa ji luñ koy wër wër wër bo démé ci fek ko fu dafa may cadeau nak du samay cadeau de Simon fay sama yoon nekku ci du samay cadeau yéen kay bi néna kon chambre gi da da da délogé jël na raay bi nekk te yow. ba léegi jël benn raay bi. ay lii di ñaari raay yëpp a jëlandoo. dem ba Thiès rek. dem ba Thiès toog fa. <laughs> ah yamba gi li mu def rafetul. bu dee neex yàlla wax wax. bàyyi gox yëpp dem ba Thiès. simb kaan aa ah, parfois nga gis Simon ñëw dëpp verre yi baadul. kooku nag. parfois Simon ñëw ci bi dëpp verre yi mu ne baadul. wala jaawale daal yi. waaw mbay daal suñu boo waxee ne samay tànk day metti moom it baadul. baadu sol daal sa saa yi du sol daal. baadu Simon gaal yenn saa yi mu ñëw du sol daal Simon baadul. nañu nag kees moo jël raw gàddu. waa ñi lal basan nag waa ñi di lal basan tëdd. waaw waaw ñu ñëw yaa ngi gisul. <laughs> waxuma de. ah ma dafa lal basang rek ah déet. non ñëpp képp la ñuy lalee basang. léegi nee nañu euh, gàddu di daw. sa Kolda waaye nag après Thiès Kolda. dëkku Pape Kadiali Badji 377 Dakar doog a waa Dakar ndekete. Birahim Touré parfois mu ñëw ne zëmb nii nekk ci plateau bi. salaamaaleykum. ñu foog ne concentration la ndekete yoo. wala non non waxuma El Hadj El Hadj Mbour la bokk. waaye léegi nag ba tey. ah gis nga Yacine dina joxe joxe ah, El Hadj. parfois El Hadj ñëw tàng nii bëri xanaa. campement ngeen doon deux ans. Mamadou Bopp na tànn ñëw di jugee ko. yéen waa Dakar yéen yéen a may déglu si ra si oto yi. ndekete daal yéen a jël troisième position yéen a yor médaille médaille bronze. donc Thiès médaille d'or Kolda argent euh, euh, euh, Dakar yéen a jël li nga xam ne mooy bronze bi ci wàllum tuxum yambaas waaw ñun nag wax fa dëgg doonte ñoo ngi ñu Dakar ñun waa Tëngéej waaye ku ñu xam-xam na ñun ay yaaram la ñu. aja ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy source a dafa ñëw ci société civile bi ba tey looloo ca gën a fës waaye nag ñu ngay woote woote ak jàmm fu mu nekk nii dañu bëgg lépp ñu sotti si ndox mu sedd rek ñu amal ay élection yu nga xam ne nii ku ci war a bokk dañ ci bokk man nag ma jaaxal moo di bu fekkee dañu bàyyi ñëpp dañu bàyyi ñee bokk ñi nga xam ne ñoom lañu ñu wax ne ñoom ñoo def erreur nañu fa bàyyi ñeneen Fadel Barro listam mu ngi toog di xaar Serigne Serigne Boub listam mi ngi toog di xaar Bougane Gueye Dany listam mi ngi toog di xaar kon nañu bàyyi ñëpp ñu demanoo ci élection yi euh, euh, boobaa parrainage bi amatul sens loolu yëpp wax fa dëgg neexee amatul sens Euh, wooteeg jàmm daal la ñu def ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom société civile bi ñàkkum kaaraange gi ci euh, réew mi jàppale ne le quotidien ñëw na ci euh, mu mel ni le ministre Sidiki Kaba ministre des forces armées nee nañ def nañ ci liggéey bu am solo ndax naka démb ci suba mi ngi woon sa Xosanto jot na fa inauguré benn poste gendarmerie brigade mu demaat ci ngoon gi sa fongole mi euh, foofu la dem amalaat fa beneen euh, euh, inauguration te nag nee na day woy fu mu nekk nii ndax nag wàllum arange gi na ci frontières yi dañ ci def liggéey bu am solo moom ki Kaba forces armées ñu ñëw ci Abdoulaye Diouf Sarr Marie Khemesse joxante nañu lenge yi ngir nag wax fa dëgg neex yàlla liggéey bi daal di door ñu ut ak saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ko nemmeeku ci que docteur libération dafa ñëw ci mbirum astu soxna nek te relancer waat nañ ko gaay yi dañ foogoon atté won nañu ba mbiri yi jeex waaye nag euh, borom këram ak yaayam mom euh, astu euh, soxna né nañu duggal nañu benen plainte bu nga xam ne nii dañ ci wax non assistance à une personne en danger homicide volontaire faux usage de faux kon nak relancer waat nañu mbirum astu mm-hmm. soxna ba nga xamné ba muy am dom mm-hmm. daf see doxee ñàkk bakkenam ni ma leen doon wax investiture yi ndekete yoo Euh, ci benn Bokk Yaakaar kenn ëpp leen ay problème rawatina foofee sa euh, Tëngéej ñu ngi jiital ci liste bi Ndiagne Diop ñëpp d'accord nañu ne peut-être ñoom nee nañ Ndiagne Diop wax fa dëgg na yàlla bu ñu ko tànnee warees nañu ko taat na waaye nag bi ñu tànnee jaari jéen bëri na ci ay jigéen yu nga xam ne nee nañ dëgg jaari jéen turam rek la amul mbooloo waaye moom nee na wax ñooñu di wax jëm dañuy ruube waaye coow li bari na si jigéen ñi nga xam ne euh, nee nañu choix bi ñu def si jaari jéen war ñu ko fi woon def mu laay

Ben bokk yaakaar national bi moom problème wala kii bi suppléant yi. suppléant yi kon ñoom ñoom euh, baax. ci national bi suppléant yi am problème. national bi ak suppléant non ma ne ci liste nationale bi. Mhm. suppléant yi am problème. c'est ça ok donc ñoom ba tey amul problème man nag loolu moo ma jaaxal suppléant bu bu bu bu euh, bu benn parti bi demee ba sa des xam nu muy demee noonu. Mhm. ñu ñëw ci critique société civile pour désamorcer la bombe électorale. ndax nee nañu nag réew mi wax fa dëgg neex yàlla lu dul jàmm jàmm moo ko gën ay élection yu nga xam ne bëri coowee nii masul am législative yi nga xam ne yëg seeguñu fa coow li bari na ci la wooteeg fitna ku si nekk di wooteeg manifestation war naa mën a ñàkk nag société civile bi nee nañu nañu def seen kéem kattan ngir ñu euh, euh, euh, conseil constitutionnel bi jël ay décision yu nga xam ne nii dana tax réew mi bal du tàkk saga du xeeñ géej gi du déborder yeewi askan wi nag Nous euh, euh, avons jamono ji nee nañu seen manifestation bi dañu ko fas yéene ñu le 8 juin. le 10 juin. ba le 8 juin. le 8 juin incha manifestation bi. voilà le 8 juin. ñu en attendant nous ñuy def di ñu ngi des di di xool ñu ñëw ci euh, yéenekaay bi nga xam ne di moo enquête dafa ñëw ci la république en otage ñu ko jël en otage Yewwi Askan Wi Benno Bokk Yaakaar nee nañ fu mu Nous nii ñaari coalition yooyu ñoo jël réew mi en otage. askan bi ci boppam ba ñoo xëy te ñu wax yeewu askan wi wala benn bokk yaakaar te ñoom ñaar ñooñu comme ni ma koy faral di waxee boo leen yóbbuwoon Douta Seck gi wala Grand Théâtre euh, ñoom politiciens yi ñuy woowee leader ñu ko fees waaye nag euh, malheureusement réew euh, réew mi politique moom 24 heures sur 24 la. loolu moom moo moo ñu sonal wax fa dëgg neex yàlla <laughs> bëgguma si ñëwaat sax benn dëkk ñaari gaar alerte si la ñëw nee nañu nag cees moo jël record bi ci tuxum yàmbaa gi du samay kàddu nag Birahim Seck Abdou Baara li Mbàkke dañoo juum dañoo juum yaa ngi ko doon wax démb euh, Birahim Touré ci jàngat bi ñu def ci xaalisuk euh, adiya bu mbàkki yu fay un milliard bi nee nañ dañoo juum bu ñu ko bëggee comparé xaalisu Farba Ngom bi ak njuumte dafay am euh, donc Birahim Seck Abdou Baara Dolli Mbàkke nañu xoolaat bu baax la ñuy wax ndax mbirum adiya ku xam adiya lan mooy adiya ak koppar bi nañu koy dajalee doo ko comparé xaalisu ba Ngom bii Euh, euh, loolu nag wax fa dëgg neex yàlla nee na ñu Birahim Seck ak Abdou Bara Dolly kon dañoo jub 24 heures ñëw na sa yeewi askan wi euh, dañu saisiraat préfet bi nee na dañoo jub adiye bi moom dañ soo jub wax fa dëgg neex yàlla ñoom nag yéenekaay bi loolu loolu la wax kon nag Yacine aywa maam 7h59 minute moo jot euh, Mamadou Fofana ba lundi jàmm incha allah ba mardi ou plutôt excusez-moi mm-hmm. mardi bu soobee yàlla incha allah ñii jàll nag ci xibaar yi ànd seeg nga titre yi de ñëw na aywa nañ ci technologie là ni ko ci élection législative yi nga bi société civile ñu dal ki ba réew tegu ci walu jamm lu moy lolé tam euh, dinañu wax ci bi euh, sogo euh, ak ci de Doli lu assainissement ministre bi ay tukki itam ay ñàkk kaaraange ci Sénégal police daal dinay euh, def njàmbarte euh, daal di dalal xel yi ci euh, ni nga xam ne noonu la ñàkk kaaraange delloo gannaaw ci Sénégal ci jéego yu am solo yi nga xam ne taxawee nañu ko démb la ñu doon def bilan ci kanamu way taskatu xibaar yi wàllu sport dinañ